bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum <clears throat> mbokk yi ñu ngi dellu yaakaar naa mu mel ni bind bi moom mooy sunu fukkeelu bind ak juróom ci sunu téere boobu di taalimu sibyaan at tawxid jàngal ndaw ñi kennal seen borom borom téere bi mu ne qaala al allaamatu bnu alqayimi rahimahu llahu taala attaaxuutu maa tajaawaza bihi alabdu xaddahu min macbudin aw matbuucin aw mutaac mu ne qaala alallaamatu ibnu alqayimi wax na boroom xam-xam bu mag boobee nga xam ni mooy ibnu alqayim rahimahullahu taala yàlla na ko yàlla yërëm mu ne attaaxuutu taaxuut ma mooy lépp loo xamante ni nii rek tajaawaza bihi l abdu jàm bi ëppale na ko xaddahu dayoom maanaam limitam min maabudin moo xam ci lu ñuy jaamu la aw matbuin wala lu ñuy roy aw mutain wala lu ñuy topp xam nga ni ci bind bi mujj boroom téere bi joxoon na la ay misaal ci taaxut lu mel ni gasa gisaanekat bi bu xaaba bi njabarkat bi mangook ak yu deme noone bu ko defee nag ci bind bi mu indi la tekki taaxut maanaam définition wu taaxut lu muy signifier lu muy tekki mu jëfandikoo définition bi nga xam ni moom la Ibnul Qayyim joxe ci taaxut muy définition bu am solo te muy taaxut mooy lépp loo xam ne dañ koy jéggale dayoom ci di ko jaamu wala ci roy wala ci topp ndax boo xoolee baatu taaxut ci arab dafa jóge ci tuxyaan mooy mbewte maanaam mujaawazatul xadd dépassé li nga xamante ni nii moom mooy sa limite gis nga ko ba ngoog comme ni ko alquran junjee ci bërëb yu bari bu ko defee limitu doomu aadama moom fu mu yam limitu doomu aadama sunu boroom jalla wa ala moo ko définir ci alquran bàyyil xel règle bu am solo règle boo xamante ni su fekkee bëgg nga dégg sa diina bëgg nga comprendre sa diina ci yoon bu set il faut nga bàyyi xel règle boobu mooy baat yi baat yi nga xam ni ay baatu diina la baat yooyu seen contenu maanaam li mu ëmb la muy tekki loolee alquran sunna yonante bi aleyhi salaatu wasalaam ñoom ñoo koy définir ma ngoog masalan julli lan moo définir julli njàngale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo définir julli yonent bi jàngale ni ñuy jullee ñu xam ne a ah, kon ndekete julli mooy lii fii lay tàmbalee ba fii lay yam ndax alquran daf lan la jullil kese jox la ay waxtoog yu demee noonu mais nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag moo ñëw nag jàngal la naka ngay jullee bo julli da ngay kàbbaar boobu xam nga alquran indiw ko donc da dellu ci sunna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam pour mun ko xam buntu diina lii la principe bi lii la waaw amul lenn luy rot ci diina ci baatu diina yi lu dul ne da ngay delluwaat suwaat ci alquran wala ci sunna yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ngir nga mën a xam loolu lu muy wund lu muy tekki bu ko defee kon mu ne la taaxut mooy lan maa tajaawaza bihi l abdu xaddahu mooy la nga xam ni jaam bi daf koy weesule dayoom lan mooy dayo doomu adama dayo doomu aadama mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun bindu ñi jinne ak nit lu dul ñu jaamu kon dayo doomu aadama mooy mu jaamu boroomam jaamu nag dafa am ñaari forme ñaari façon dafa am jaamu gi nga xam ni kenn mucc ci ñëpp ñi borom bi tabaraka wa taala bind ñëpp ay jaamam lañ moo xam mu neex leen wala mu naqari leen ndax lan ndax ñi ngi dox ci suufu luwaa yi nga xam ni jaam moo ciy dox feebar bu jotee ku gëm yàlla ku gëmul yàlla day feebar dee bu ku gëm yàlla ku gëmul yàlla day dee kon luwaa yooyu ñëpp ciy obéir loolu mooy luwaa àdduna yi mu des nag jaam bi nga xam ne nag moom dafa nan dafa taamu di obéir tànn di obéir luwaa yi nga xam ni ñooy luwaa sharia gis nga ko jaam boobu nag moo am valeur su la ko borom bi tabaraka wa taala nangulee aha waaye nag loolu tekkiwul ne ba léegi da ngay génn ci limitu nekk jam loolu moo tax xoolee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci maqaama yu kawe sunu borom tabaraka wa daf ko fay jox qualificatifu jaam boobu xoole bi mu koy riñaane mu ne subhaana allazi asra bi abdihi ak riñaan ak yëkkatiku la ak kawe la waaye ànd ak loolu yëpp mu ne jaamam kon daal loolu nga dégg ci ni limitu doomu aadama lu mu suufe suufe lu mu baax baax baax baax baax lu mu kawe kawe kawe kawe du génn nekk jaam kon doomu aadama deesu ko jaamu aw mat bo wala koo xam ni dees koy roy aw muta wala dees koy topp roy ak topp nag limite ya sharia moo ko définir alquran moo ko définir sunna yonente bi alayhi salaam definiir ko képp ku ñu roy walla képp ku ñuy topp roy ga ak topp ga dafa war a tënku ci li neex yàlla sunu borom ne yaa ayyuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum gis nga yéen way gëm yi topp leen yàlla topp yonantam ak ñu yor seen mbir te bokk ci yéen kon gis nga ñooñu seenuk topp dafay tënku ci topp yàlla topp yonante bi seenuk roy day tënku ci li neex yàlla ak li yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàngale kon ñooñu amuñu topp goo xam ne dañ koo boyal ki am topp ku ñu boyal te sunu borom defal ko ko mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon keneen koy rey di ko topp na fekk ca la koy roy wala la koy topp na nekk lu neex yàlla na nekk lu neex yàlla kon noonu la sharia définir roy ak topp bu ko defee kon dañuy teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi